dëgg la nag may sax jot na jot na gannaaw de waaye ñaari xale yii nag ñoom loolu du ñu dox seeni mbir yi wax ko jéem koo def nag ñu ñu faranku lay rek fiix yëf yaa ngi bëgg yàgg de te lu yéex nag day soof mhm. ndax macha allah suñuy doom lañu sotti seeg def si la te laay dama koo bëgg ci sama xol loolu moom yàlla def na ko day sa doom waaye nag diggante bii nañ ko jéem a daganal te nu mu gaawee nag gënal ma wax nga gis nga diggante boobu maa gën a bëgg mu gaaw ndax nag ndam maa ngi doon yàgg ba ne xale ba tey la dafa doon lépp nag laay bu duggoon sa kër gee nga xatal ko kon dina metti waaye dafa war a ne mu bëre waaye laay nag ay mbiram moom xam nga ci projet yooyu mu nekk kër googu muy tabax te pareegul moo tax rek ma bëgg rek nga may ñu tuuti ndax laay dafa nekk nit koo xam ne bëggul ku ko defal dara dara dara ci biram fa dee passé facture ma ne xaaral ma sàcc ko fay la ko man daal dama ko fay ba ñëw ba mu ko yëgee daa wax a ma yaay xorom sax bëgguma nga jënd ko. dafa am jom rek wuteeg yenn xale yi ndax lii ku am jom dong koy def nag ndax lay papam tànk ya mu taxew woon ci biir kër gii moom mu ñëw jaar ci ay tànk baayam na yaay sa dara bu mu wadd ci biir kër gii. jom rek ko koy def ta xam nga ne lay mi buma ko jëlee sama dom jé jox ko ko machallah ma ma dina dinaa nelaw bay xindoo da ngay sama domi nday han kontaan na ci mom loolu nak ndax li mu def ni wuté nan na ci jamono ji tay ji lii do nga nak mo taxoon ma ne dinaa ñëw ñu gën ci waxtan nak man kontaan naa ndax démé na ni ñu xaar tuuti rek patiente tuuti ba si kanam daal li ma la xay daf ko may ñu tuuti rek bu soobee yàlla bu ñew rek may ñu bu soobee yàlla ko na ñëw def Fapal doon nangu seen. waaw ma def. Fapal bu ngeen am. Fapal jaamu naa la woo. man de boo may xew ma woo la yaay sama doomu day. balaa maa jóg ci la woo la. incha allah rabbi. da ngaa yéex nga mel ni ku may bëgg a fóon. bëgg la rek. xool. néegam bi toog di wax rek kaay toog di xaar kaay toog gën a toog. monsieur Dramé sax moom ngay def sama xarit la toog dama yàgg ak moom ba ni xale bu léegi xarit la. moom kon fi ngeen xamante moom ba ni xale dañ si xamante moom. sama takkaay moo doon laaj sax maa ngi ko wér moom. kon kon kon kon. bisimilah. baaxulee ma dara daal. waaw yow sañ-sañ nga doom ndey fu la jëm nii. nekk ci rek xam nga ko toog ma wax ma ci lépp. waaye ñu mën naa leen. Mara waaye doon def fi nga foog mooy foo de. mën a xaar ren ma dem fa rek. nii la demee nga ah, sant bi jekk <laughs> bi. Cissé laa sant. aywa sa sant bi dafa neex. Uh-huh. man sama cousine Cissé la sante jeena ba Cissé bëgg ma ko bëgg de moo tax fu ko sante Cissé dama lay bëgg. ko waroon naa ko gis waroon naa koo gis ba takk ko xarit nak ki mooy yaay ko sama borom bax bi. ki mooy yaay ko da mooy yaay ko de borom keer gu neex lu la defal ay yow. na lo mo xam nga bayax ko bayax ba ma xam lo la laa bëgg. day dëgg la. mariage ko bi dafa ko ma voyage voyagé. dëgg la. lolo tax xamante wuñu boobu ba léegi. dëgg la kay xam nga du ma toog. mais kura nag moom ko bax la ma sha allah. yéen bax rek. Eh. wax dëgg yalla ndax ni mu bëggee may sa nii noonu rek la ma bëggee. loolu ko war ndax chaque jour maa ngi ca kër ga. te wax dëgg yàlla taraanga mu muy defal kii rek ma la may defal. moo ko war. yaru na baax na. bagage yu baax yi ngay yi ngay laaj moom mi moomu koy indi. Ah, sama lépp nag waaye ku ko doon ko fekk ci yoon. béboo ñu dem ba beneen yoon. Eh, beneen yoon damaa bëgg ngeen xamante bu baax. bu baax la nga defante moom. beneen monto rafet na man ko bagage yi moom rafet na macha allah. xam naa ci nga takk nii sax. ci laa takk waaye bu ma ñëwaatee. dinaa la war bagage mu leen ngeen toog. am na lii rek ñu bàyyi la nga dem. bàyyi ñu bàyyi la fekk ma nekk ci yoon. dëgg la dëgg la dëgg la. waaye dinaa ko ñëw nag. macha allah loolu moom dina ma nekk ma yóbbu ma këram ñu gën a xamante. loolu moom bëgg naa loolu. xale bu jigéen bi nala, naa la ma yow tamit eh nekk si yow da ngaa bëri problème nag ñëw rek toog ma yow namm naa la dangaa bëri problème li nga ñëw xam nga yow yaay sama xol loolu daa na ñëw rek moom day di sama xarit loolu moom am na àdduna woon nga képp ñëpp ko xam loolu ñëw nag bëgg waxtaan ak yow nag xam nga jabaram di kura yàgg na loolu te amuñu doom xale bi ma yéene ko doom xañ na lii la suñu borom dogal ci moom mbirum suñu borom rek daam leen lu mu ñàmbaax ci biir mooy nag ngóone sa doom bi jigéen ji hmm. la laay bëgg ñaareel ko loolu moo ko wax ni ko koy am ndax yaayam nag ba may xale ba tey maa moom ñooy ànd. muy sama xarit di sama doomi day sama lépp. ñu mhm. defandoo lépp nag. ànd nag ba ñu gone ba tey. dem école di ñëw. wallaay ba léegi def nañ ko ci àll. lu def nañ ko ci ñun foogoon nañ ne sax ñun lu ñu def suñu doom yi dañ koy def. macha allah nag ànd bi dafa yàgg. loolu na lool. te lu nekk nag def nañ ko maak yow. wallaay dëgg ba ñuy ndaw ba léegi. ñun foogoon nañ ne la ñuy def ba la ñuy def ba ñuy xale suñu doom yi bu ñu màggee def ko. ko waaye yàlla jàppale nañu nag ba defuñu ci lenn. wallaay. waaye li nga wax nag kontaan naa ci la doom ndey. ay sama xarit. damay békk. ndax nga toog ba sa doom ñëw ne day jël ngoone. Ah, macha yàlla cat yàlla jiitu. yàlla bu fi cat dugg. Hmm? waaye nag. Hmm. kura dafa baax. wallaay sama goro boobu mënuma ko fay. baax na macha allah xëy na yàlla mayu ko fa takkandeer mais hmm. xale bu yaru la. waaye lii nga ñëw nag dox si ko wax ko ñor na ma lool te bu soobee yàlla dinañ ko def nag nu mu neex la <laughs> waaye nag àllaaji bi nag mu ci jàmm waaw mu ngi woo kontaan naa noonu la waaw nuyul ma ñëpp ah ki sama tahu bu góor la. waaw tante. Laye. Cissé. toogal namu naa la. maa ngi nii. ah. ça va alhamdulilah. maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waaw. Assa yaay. maa fa. la koy laaj démb naan xaw ngeen a la ah amul. ak wax yàlla doom ji baax nga doom ji yaru nga ndax sama kër gi ba nga fi duggee ba léegi da foofu lu ñaaw waxoo ko fi ci lu ma neex rek ngay def nga jël ngoon mii nag bëgg ko lool te yàlla rek a tax macha allah yow mii moom zéro faute ndax sa diggante ngoone bul fàtte ne yàgg te xam nga ne cat dafa gaaw man daal laay bu ma bëggoon. ma ñu daal nga def ful man daal moma gëna da xam nga dugg bi génn bi te nit ñi dañoo mëna wax ñi ngay romb ci mbedd bi ni di dugg sax jour wax rek lañuy def nga jël sa ngone ni nak muy sa jabor yoon yàlla ci def ful rek mo gën ndax hmm. li ngay def ni bu doon keneen duma ko nangu mais da nga bokk ci sama famille mo tax hmm. man daal looloo ma gëna lu da jëre jërëjëf tante wax deug yàlla sa kàddu rafet na ndax kër gi moom bu dul dara itam jappé nga mané ni ci bir kër gi ki di ngóone nak bëgg na ko bëgg yam té suma sañon bisu tay bi sama kër lay yéwo yi waaye dafa fekk né jamono jiñ tollu dama nekk ci moment de construction de tabax sama kër ndax on woon wone kër nga fay benn nek la ko am te fa la kur nek té ngoré bu dikkee amu fuma ko duggal bu sama sago dal nga may ba tout rek sama kër gi yegg ma ñëw ngeen may ba ko daal laay daal yow loolu amul benn problème fii ma ak Ngoné Ibrahima rek ñoo fi ne kër gi kenn nekku fi bu doon sama sago nga takk ko bàyyi ko ci kër gi ndax Ngoné kenn xatalu ko fi te yow it macha allah boo fi kenn du la xatal ndax sotti ma daal looloo ma gën a waaye nag ndax noonu nga gisee amul benn problème naa patiente ba si kanam. wax dëgg yàlla kontaan naa trop nag. Mm. te xëy na yàggaay bi tamit gënaluma. Ah waaye. ñu delloo suñu xel tuuti rek parce que nit ñi moom kenn mu leen dee wax li ci importance rek mooy ma xam li ma bëgg ngoon a xam li ma bëgg parce que nee ko jël nag soxna moom bu neex yàlla soxla yaa yal na yàlla moo tane waaw ah, xanaa ngoone ba mu ngi fi waaw mu ngi ci biir mu ngi ci léegi waaye yeetal ci biir waaw ah, d'accord baax na mën naa xaar tuuti may ko ba si kanam ndax patiente rek ba si kanam yàlla baax na yal na yàlla def gën rek koom. ma doon seet si yaay ci yow rek laa ko gis. yaay booy. ñëwoo kay mën na ñëw maa la raw. ça va. ça va bien. ana laa ji benn. waaye yaay nii waaye yaay noonu waaye nga def. ma ne toogal man bu yaay moom bu defee nii doom nan la a ni man rek. yëpp maa kontaan maa sa yaay te il faut ngeen def ni man. maa kontaan si yow. maa gën a kontaan si yow. waaye gis nga nga sañse. simple wala doo mag. man gis nga jëf ko mat rek. soo màggee yàlla naa mel na <laughs> daal di may teel a jóge joxe sama ndaw tan rek ne balaa maa yegg kër ga ñoo seesal doo ma seesi nga toog sa kër rek. ay yaay naa la ah? seesi bul wax loolu. yow lan moo tee nga ñoo seesi ma. woote téléphone bi moom neex na lool waaye dëgg sa tànk yi ñoo seesi ma nag dara dàq ko. yaay loolu yépp dëgg la wante yaay yow tamit danga may comprendre hmm. xam nga ñun jabar Moodu Moodu yi dañoo sonn yaa ñun marché sax bu fa dee dem dañuy tiit ah. xamuñu bu ñu génnee wala ñu def dara rek dañ naan jabaru diw yëkkat ngi si la ka neex. xam nga dëkk bi xam nga ni mu demee man du ma la ko wax. et man sama kër gi dafa wét. man donc maa fi nekk ak janso bi. waaw loolu yëpp moom dëgg ndax fii nga toog nii maa la fi dëgg ndax heure boo ma woowee téléphone lu rafet rek laa lay diggal bul dem bul dikk tooga si sa kër xaritoog say goro ak say njëkke gaa sax nekkuñu fi yow doo sa kër waaye ni may def fexe leen koo def ndax yow it amoo kenn ku dul ñoom di sóoraale say njëkk ak say goro bu xarit bu du àndandoo chaque jour ma wax la ko loolu moom dëgg bu wér la waaw. yaa xam nga mayal sedd nga naan. Hmm. tey dafa xaw a tàng nag dafa tàng. te weesu naa tàng. yow moom def nga ba mu baax kat gis nga doom yaay ja rek yow tamit yaay sama yaay. waaw loolu de moom am na macha allah. yéen la de kontaan ba sa bor bi ñëwee ni nga leen. ay yaay yow tamit xam nga ne damay defar ba mu baax. loolu de laa la digal. nga leen toppatoo nag de. may defar ba mu baax nag ma yebee woo rek sa laa nekk. da nga ne ba tey waaw. parce que sama bor bu góor bi nag moom man naa ko de moom la kañ lay ñibbisi. yaay xam na démb rek woo na ma. nee na ma fin du mois lay ñëw. bii bii bii waaw. ah yal na ko yàlla indee jàmm bokk. loolu dara ma wax te yaay noppal gis nga. bul wax dara gis nga bu ñëwee. Mhm. oto laa lay jëndal. dama ko waxee ma gëm ko. billaay ngay wër la nee nga ma ko na wax dëgg yàlla ah waaw. danaa ci kontaan de. mais yaay baa yaa ngi jël sa comprimé yi. comprimé yi nag moom dama cee sonn ay sama yaay dama cee sonn mënuma cee dëkk rek. dama ko obliser rek boole ko nag garabu olof bi ndax ba ma ko jëlee ba tey macha allah maa ngi gis tan ci sama yaram bi nag hmm. waaw olof yii baax na lool ci yaram man daal moom maa ngi sentir moom sama yaram moom la ma daan métti lépp sentir naa tane yaay loolu dëgg la mais tamit bul fàtte ne dangaa war a topp sa conseil médecin loolu yëpp dëgg la waye man ci olof bi gis na ci tam kay na ci japp rek ba ci kanam ah ñaan yalla ko mottali lepp rek kon baax na gi yàgg ah ay projet mariage ngóone bi ak lay bi mom yag na de ah man nag la gëna a jaaxal yaay leer ma ci yow mi la tardé man ni ah dafa yag di yalla tere yow lay ak nima ko bëggee yakamti bis bi am mu ah, dëgg la ma tay may tayé sëy bi ah déedéet loolu bu ko waxati nag balaa ñuy di la dégg foog ne lépp ci man la di dem naa ba ci yaayam toog waxtaan seeg moom boobu ba léegi maa koy dégg laaj ci boppam woo naa ko ba sama kër waxtaan ak moom nee naa bàyyi ba këram gi pare nee naa ko ngoone am na néeg fii lépp a ngi fi ah man kay farata bi rek laa soxla laaju ma ko dërëm laaju ma ko ko su takkee mun na ko fee bàyyi teewul moo yeggali këram bale yaay mu loolu mo la gënal mais loolu mënul nekk yaay bu yow tamit ah yoo xam nga ne lay dafa sax aawo ah waaw. Ah. kon kay aawo ba ci la. mais aawo ba ci la mais lay am na këram. bu takkee ngoon da kaa war a yóbbu këram yow tamit nag yaay. loolu dëgg la waaye kër ga moo yàgg te pareegul dégg nga moom daal loolu la teg sama loxo ah, ah mën naa takk rek bu takkee takku jàkk teewul mu ngay mu ngay yeggali këram gële ma sonal ma ko ci dara. na sëy bi rek ah non sëy moom day am bu dee laay dong sëy bi am parce que man lay xam naa ko bu baax. laay yaay laay ku sérieux la. Ah, amul benn problème sama doom sama genn wàll la. Hmm? Hmm? man laay bu ma sañoon moom fii yëpp sax du fa yeggal ngoone ndax yëf yi dafa bëgg a yàgg. non laay mu problème. Ah, yaa xaaral mu ñëw indil la kii bi sama album bi. album gaawal ñëw ko kon sa album bi génn na.

barang tuan Allahu සවා යන් සමවයි මම භගවත් උදේ නේද මතේ මම අම්බුතිකාස් බෙමතේ මට යයි තද මම මොකද තානක හොතාන මගේ පාටේ කොනාටගේ කුපි බිඩම උසි kuwabre xam nga ne moom day jékki jékki rek ñu demee moom non xam naa groupe boobu moom yëpp kale mën a jënd ko loolu moom boo ci gaa yi dama neex loolu waaye moom day jékki jékki rek coupé lii mais nag télé bi da nga ko waroon a fay fay naa ko di xam nga moom seen. bu ñëwaat moom. wax nga dëgg de doole ñu ngi àndal léegi ak xamante ne. dama bëri waaye nuyu woo sa sekku bi mi ngi jooy rek. ah xanaa xale jox ñu ko mu nekk. ah ne woon naa ne may ko kaay tey ci suba de. Ah, xam nga courant yi moom buy coupé la plupart buy ñëwaat doole ñu ngi àndal léegi ak xamante ne. seen coupé yi. non man kay bu di coupé suba coupé boobu. yaakaaroon naa dafa jëlee courant wax dootuñu wax ay courant mais lii moom vraiment jëmu kër. ah. waaye foo ko jëlee tay moom bëggoon naa nañu waxtaan waaw ndax kat kuréel booleel na maa yow ndax nee na fan yëpp bu la tegalee añ doo añ bu la mayee ndox doo naan wallaay loolu foo ko teg yaay gis nga waxi kuréel fi mu toll nii man dama ci bëgg a découragé defuma ko waxuma ko lu jar muy ñëw di boole mais yow xam nga man sama lekk wu léeg-léeg ma wàcc am am envie jàpp fenn resto wala dara mais suma ma lekkee sama biir fee suma ma liggéey mënu ma lekkat mais naa def li ma mën bañ ko nenal moy tax ma bu xeex ci bar xeex pour bañ la mu am len lu muy xel ñaar way da nga xamni ni resto war la borom kër la bo demee ba ñew da nga wara tok sa kër lekk bu suur la joxee boo bëggee lekkal boo bañee lekkal xam nga ni yow sa taw sos mu da naan de ndax sha allah kuro da fay yew fay yew de damay bañ mu naan mu naan affaire yi moo tax ma bëgg nag ñu def dànk bin bin ko boo nee korfi rek ma korfi. day baax. te effectivement. ne ndànk ndànk rek laa ko def. non looloo am sax ndax man góode moom sama xarit. Mhm. te ma bëgg ko fekk na kay sa papa moo fi dugaloon kuréel te waxee borom kër moom waaw rek la sant. parce que nag man mi góor xam naa nan laay doxalee ak nan laay def ba am li ma bëgg. woo bëgg naa ko. te yow mi sama yaay aussi bëgg nga ko. kura comme ni nga ko waxee sa papa moo koy di ci kër gi. Mm-hmm. te waxi kilifa waaw la sant. Mm-hmm. danañ sàmm suñu ngor nag def lépp lu ñu mën. Mm-hmm. waaye nag xam nga ne tey kura ak fépp a féetee ci lu baax. bu ngoone bi kee dolli ci mu ñaari yu baax. ndax nag jàpp ne lépp lu mu mënti am ci kaw suuf sa xol seen moom moo gën a. lépp moo gën a man kontaan naa ndax yéen yaay sama xarit. jërëjëf kontaan naa ne maa ngi gën a kontaan <laughs> xaaral ma xool sama am sama papa. bilaay namm naa leen wax loolu tamit bu sëy bi de. waaw eh. <laughs> euh, waaw ok dinaa la sees incha allah. ok merci. moom foog fekk bee wuñ téléphone waaw ma ko jàmm. waaw ngoone yow namm naa la de. maa la ni nga yendoo sa kër. waa gis nga 5 kilos rek yàlla na mel ni yow. <laughs> ça va yow ça va bien namm naa la. ah waa kër ga. ah ñoom namm naa leen de. Ah, sama yaay léegi la doon woote xas ba ba ma ràpp. ah ma nga fa rek de. wax na dëgg na parce que yow nag faa xaw a gëj. mais xam nga rek kër gi kenn nekkul. nan laa koy tëjee di ñëw. yoolu na soo amee say rak nag nga dina nemmeeku. da cee baax. ana laay moom. laay mi ngi fi. Hmm. Mhm. voilà waxuma laay mi ngi fi. ana laay nga ne ma laay mi ngi fi rek seetal nii lu mu doon nii. ah laay moom mi ngi fi moom mi ngi si jàmm. Hmm. ngoone wax ma dëgg xam nga man sa mag la amuñu na boobu lan mooy laay mi ngi fi laay n'est-ce pas dafa tëraloon projet pour ngeen def seen mariage. waaw waaw léegi lan la. waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci moom. ba euh, sama yaay sa keroog woon na ko pour waxtaan ak moom ci cadre boobu aussi mais lay daal li ma jaaxal mooy naan man duma takk sama deuxième femme di xam nga rek sama kër pareegul affaire yooyu projet yooyu daal la lay te loolu xam nga doxu fi sama yaay ko sax wala takkal ngoone nga bàyyi ci biir kër gi mais lay daal day loo xam ko baax la et góor gu mën a yor jabar la lu gis nga ni mu yore aawam li ma lay conseil mooy nga dugg si te dem sëyi bàyyi sa caaxaan yi nag. man ah, de pare naa pour sëyal ko moom. ah na loolu laa yàkkamti dama laa fas yéene nag langal lang boo xam ne waxuma la koñ bi dëkk bi mais Sénégal balaa fay nit a langati da koy wàññi. dégg nga loxo bi boo xaaral ñëw xool bon bi xam jóge gis nga lekk bi li mu doon nii. Ah, yow loolu daal xaaral ma ñëw. tey plat bi nga bëgg lañ la toggal. Ah, ก็ต้องโปรเลมากเลยค่ะที่กันละ Well, goleiro. Tá bom? É melhor ou não? Olha, Bari, tá com uma ideia, Babu. Bem, na sala, Bob, dá uma cara fim, mas eu vou bes. Gis na 100 000 francs yi ma digo pour mën cee jënd sëba laa bëgg balaa nga fi jógee tey nga létt ma mbaa nga firi ma loolu laa bëgg sa tekkaaraan yaa ngi nga te dinaa la létt wala ma firi la mais gis nga yow musuma yaakaar ne jigéen intérêt ngay don mais dama la daan dig dila ko jox mais cette fois ci suma la ko joxul war nga meuna dawal compréhension parce que umpale wu ne bientôt tabaski ba nga ñew dama yor jabar yor dom am yenen charge yu ma war ci ñom bu fekke motax ngay doxale ni daga ah, wacc nga sa yor déglu ma di nga sa soxna sa ceeb ak say diinu say gina say nen man jentu ma lool xam la kipe sama bop dem xamala leer man nekkuma koy ñak man Ngoni pour ma xamal la loolu yow. gis nga yow. avec ça nga ne danga takk deuxième femme. yow soo ma takkee ma torox yow soo ma takkee rek ma torox te sama yaay juru kuy torox. ci li nga yaakaar mais sa moroom kura ma bàyyi ci kër ga toroxul. lijjanti ma kura. sama bopp laa lijjanti. d' accord faalewu ma la. d' accord rek laa lay xamal. soo yeboo wax ba ñëpp dégg mais boo bëggee dégg dëgg Ngoni biraa bi. kii mooy sama nay man faalewuma la li jënduwuma la man maa la faale man. xoolal mais gis nga ku la jàpp ku la bàyyi bàyyi traite. ma ne la traite la gis nga baaroo la nag doo ko sang ba mu set nga mel ni fajkatu rab ba dama laa lijjanti yow yaay kan waaye fii nga may fekk ne fàttoo laa lijjanti yow jabaatu bay bëgg a dee bon.

sama chéri si boppam. baax naa ma sama chéri ma ne naa ko xiimal attaaye. Hmm? mu ne ma baax na ku may seet ne ko damaa génn. la def. lii de la dëkkee ak man nga leen naa la ko xamal gis nga kii leer na ma ne am na ci lu mu ne waaye koo ëppul mbokk mënoo koo jëw te man maa ngi koy lijjanti hmm. te gis nga situation yi mu nekk nii lii yi ma nekk nii nii nii hmm. gis nga bu ko naree continuer damay ñaan baat mu gis sama kër. parce que man lu ma xam laa xam lu ma xam xaw ma. teg ko ci suuf. donc day moom loolu du mën a ci seetaan loolu moom xoolal bu ko sax di ñaan nit ñi di la dégg. yow macha allah sama chérie nu ma la jàppee ñëpp di la ñëw sa biir sëy bi nga naan ma waxu tas loolu moom bu ma ko déggati moom wax. sa chérie ba nga xamul ak bii du bee ndax dañ ko fa mel dañ ko weccee. man bu ma ko gisee dinaa waxtaan ak moom mais ba tey li nga may wax nii mënuma kaa gëm ci moom. je viens juste de discuter avec mon banquier. well, Je xol day pas te loolu c'est réciproque je nga may sentir noonu laa la yëgee et c'est l'occasion aussi de te dire que vraiment man relation bi ma trop trop trop trop d'autant plus que xam nga man dama nekk responsable mm-hmm. te c'est vrai que j'ai eu plein d'occasions de sortir avec des filles mais quand je ci génn boo ma demee ba ci biir damay am yaakaar ci yow mais après dama am ay déception quoi. Mm. bon ma yaakaar ne nag bii c'est la bonne te gis naa ci yow jukko ju baax te xam naa ne su ma la takkee di ma sayal. incha allah bon ma ne woon nag naa la woo ñu waxtaan ci. Mm-hmm. pour ñu jéem a xool qu'est-ce qu'on peut faire. mais ma woowee tey ci débat bi man damay sawar pour tontu la parce que man tamit aussi góor bu mel ni yow yaa doon seet te mun naa ne gis naa ko ku yor sa tamit di lay ba tasee lu baax doo ko moom. macha allah ah, macha allah na. Mm-hmm. doo am benn problème sa xel daal. Mhm. na mel rek maa ngi fanaan en tout cas gën na dal xel mais aussi tamit euh, chérie j'aimerais aussi ñu discuter par rapport à un point qui m'intéresse man euh, xam nga c'est vrai que ngay ñëw di ma seet si neex na. Mhm. ndax ku nekk bu doon sa sabu ki nga bëgg day ñëw di la dox si. Mhm. mais aussi xam nga man responsable laa quoi te nit ki aussi booy ànd ak moom. da ngay bëgg xam yaayam xam papam xam sa famille ma bëggoon nag vraiment. Euh, côté bobu xam nga ñu jëm ko xol nun koy gérer pour que vraiment may mëna ñëw di toxantu di la sét sa kër parce que loolu dina ma dina ma soxal loolu chérie c'est vrai mais li nga wax noonu sax dëgg la parce que aussi tamit sooy ànd ak moom yoon la mu xam sa famille surtout nag fi ngay yeewoo loolu moom bu mu la def benn problème mais man tamit aussi xam nga sama yaay dafa fi borof ah bon dama sama bu góor boo xam ne daf maa fatt ni sa tala mhm. ñaar ñooñu moom wala loolu su ma ko réglé mu féete boor yow pour nga ñëw suñu kër kon ndox te man tamit loolu laa bëgg ñu xam la sama yaay xam la. ok mais bu fekkee aussi ton frère là daf lay sonal ma xam nga booy ñoom dañuy tox yàmba mais j'ai un ami commissaire de police euh, monsieur Niam mun naa ko booleeg moom mu réglé ko taf taf. non du du question tux yàmba eh, amul du loolu daal. mais xam dafa fiir daal. mais du dara mais incha allah loolu naa ko rek amul benn problème. amul problème de <laughs> moom du dara xam nga tout juste rek xam nga affaire bu ndaw la rek. Mhm,

bi ma si njëkk a sañse fii laa koy solo si kër gi. dana ma neex. parce que xam nga bañaluma la mhm. macha allah. merci kontaan naa. naa dama ñëw yeewee ko. waaw déedéet waay. xam nga naa la. Ah, après Demba pour mu benn plat. moom parce que ma dafa yor benn resto. Ah. pour mu indil ñu à la maison ñu. Ah, ñu war nañoo xamante bu baax. non ti ko xam ti ko xam incha allah. ok merci maa ngi dem ah kon problème aar ma gunge la. Olha a questão. Mas não tem gulonar, galera, Ah, muito bom, minha pai, minha pai, minha pai, bagagem ಬಗಾಜ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ah, ಗೆಲ್ಲ maa ngi dem te ñëw. waaw ah, baax na demal tey nag ko nit sa kër. amul benn problème. xaar naa ko ba soo mu ñëwul mais xam naa ñëw bee yoon bee rek. d'accord bu ñëwee mën dem tey rek jaaxal na ma dem tey mënu la woo jot la aussi. jigéen tiital la nii. yow la naa la loo ne. yaa ngi si jàmm toogal ah. ça va bien. waa ni nga def. waa gis nga kontaan naa a jàppale. waaw dama ne woon léegi léegi dama lay woo. mais nag moo dëgg yàlla gën bu nit. loolu am na moom te fi nga ñëwee sax nag foofoo baax. kon de war naa rey gaa ma ko ko. naan bi waaju baax xale bu dégg daaj. mbaa soo ko xoolee rek da nga koy bëgg saa si xam naa xale bëgg na ma yéene na ma boppam man en tout cas gëmeewu ma sax ah loolu waaw si loolu damaa toog si kër defuma dara may naa doxal bu bëri laaj ba mu defal ma dafa gunge bi kese. Mm. bindal ma seen 200000. 200000 góor yi góor yi bu jafe ma. ci jamono du taat ji. lay bindal seen 200000 du la ko may kooku bëgg na la. kondaki mampu ya kwa mampu ya kuchiko kama kwa bila ya desa mi desa rom kiri beri rom aja eh, ni beri nyoba cuman gue nih, ko cas yow la koy xeb ana ko ko am won xarit no amna sax mais dama xamagul nak ay xaritam vraiment mais la xolal jëm ko mau jënt na ko ci ginaaw rek xam nga mo liggé premier nga nek deuxième do duma la bayyi ginaaw lu tout gis nga ki ñew na heure bu wara xam na yow yaay kan wuteeg nak kama xam muy lay lay am na ko mën na ko waaye du ko defal takul bayu duñu bëgg ray ak lambar lambar lambar du bëj bëgg la ray ak nak wax du bëj gis nga ki nak gor la gar ni la ndax ka yëkkati segu 200 000 di ko may xam nga ni koku kon bayu la bëgg na la tek na la fo xamantene ni nii xëy na dagu fàkkanee xam nga nak lan la bëgg nga fonkal ma ki jappal mako ko téel ma ko fa juro loxo nga waxuma la nga bàyyi lay waaye nga tegeel ma mm. ko à côté ndax tax ko bàyyiwul te da lay taatee de lu leer nag laa la wax. xam nga man yaay sama xarit. li nga wax lay def li ma digal loolu la te nag def naa la doomu ndey def la poset bu fu may jëm ŋàpp la boo ko defee doo ko réccu moom moom surtout dina la li nga wax nii moom laa koy doxal. waaye nag loolu dinaa la ko xamal gis nga seytaane bi bu ko yëgee lépp a yàqu. kooku moom xoolal bu mu ko yëg mais xam lu ñuy def xam nga yow 200000 day ñëw rek xam nga am fu rek def comme niñ doon def. man dama ñëwoon si tool yi àndal na fi hmm, si kon ñu àndaale. man a jëloon samay changé xanaa ñu baax na. ñu def neex na ñu baax na waaw baax na ñu demaale. sama taabu mère rek ñu def. waaw yàlla ngay présenté wu yow ndax ñepp la xam picc yi sax sa tour lañuy ñuy euh, sabe bu ndaw buy nàmp sax bo koonee ko ana ngone mëna la ma nga nee buraati bi nga doon dama bëgg nga romb ma nuyu. jege bi de mënul sa jëkkër te mënoo sa dara. da nga mënul dëggee. da nga bëgg nga defaral. taxawal xaar ma ma ñëw. defaral ma kër yi taxawal rek xaar nga bi dafa sa kaw li la sa soxla sax kër. bu taxaw taxaw. sa projet de mariage foo ci tollu yaa ci je te jure moo tax sax ma soxla sa expertise tu sais Ngoné hmm. fu nekk la ñuy dem je l'invite on sort dañuy dem dans les bois de nuit dañuy dem à la plage dañuy dem resto xam nga dañuy def shopping mais le seul hic moom mooy Ngoné hmm. buggul ma tudd seen kër tu sais je ne suis jamais parti chez elle. Bah il est rien. non bien ñu dalee génn ba léegi mun ma fexe ba dem seen su ma tuddee seen kër rek mu ne non patati patata xaaral fii dafa am lu may lijjanti sunu kër ni. man je n'arrive pas à comprendre. mais yow l'a nga nar a góobee seen salade la yow Lamine yow tu es quelqu'un Tu es da nga yow tu gères une entreprise une entreprise est plus difficile à gérer qu'une femme.

am nga lu mu lay non je sais quelque part tu as parfaitement raison mais ñaa je te jure laa la wax nu mu munti demee non ngoone comme ni ma ko waxee je vais le faire j'irai chez elle te dinaa découvrir nag lu muy nëb. mooy yoon bi de. ah mooy yoon allez. ñu ngi fa. waaw waaw dara maa ngi ñëw sa kër rek. ak ah, déedéet. xam nga voyage bi rek moo ma téye. mais sama xel yëpp a ngi ci yow. loolu kay xam naa ko. ndax jot moo amul. dëgg la ma toogee nag maa la <laughs> amul benn problème ça va. Ah, sama ñëw tey bii ko woon nii. Hmm. mbaa jàmm. waaw ndax kat li ñuy wax njaboot du jàmbur dëgg la hmm. te yow bu yemee ci man yow rek. kenn du ñu dégg mais bu yemoon ci man rek kenn du ñu mës a dégg waaye na xale yi ñoo dul bàyyi weer ci benn fan ah ba tax na kura keroog dafa ñëw sama kër di ma kalaame sa ngóone ndax ngóone bu fekkente ne laay da koo bëgg ko takk ko dafa war a toog sa wet balaay takk ko indi ko këram waaye warul dem di provoquer kura di ko wax lu nekk biir këram. moom ngóone moo def loolu. boo nee def loolu te loolu rafetul ndax sëy moom fu ko yàlla tudd ala kuliyaal bi day am ngóone bu dee yàlla dogalee sëyam ak laay mënuma ci dara mënoo ci dara gënalu ma nag gënalu moo taxoon mën naa ñëw waxtaan ak yow gënalu ma sax man mii di yaayam ndax nen li nga fi wax ku ko dégg xam na waxi dëgg nga wax man yi dama lay jéggalu balaa dara xew ndax ngoone lii mu def nii bu cëram sant ma ko ba muy génn sama kër gii xaw ma woon ne fa la mais tooñ na ma ndax lii mu doxalee nii du yoon mukk muy fekk kuro ba këram di am lenn loo xam ne dafa fay def loolu moom boo tëddee na nelaw man nii xaw ma kan de may ngoone yeboo waaye na sa xol bu ñëwee ba fekk ma fii dina xam ne maa ko jur

li nga xam ne fekk si na yow dama lay jéggalu te bu ma ko gisoo it dinaa ko jéggalu man ngi lay jéggalu bu baax. amul benn problème dama bëgg nga jéggal ma trop. ah déedéet. ndax ah, kay parce que nga ne juum na lii war ko woon def. da di xale rek. ku baax nga. ah maa ngi lay jéggalu rek. meroon naa nag waaye nag sama xol sedd na ndax yow wax nga wax ju rafet dama lay delloowaat ngërëm li kay te xamante ne xale yii. duñ ñu mës boole. na ko maa ngi ñëw rek. waxtaan nga kër ga kenn na fa. toogal na ba si kala. bàyyil ma dem ba fay. woon a toog. bu pour noonu la ñëwee. waaw solo yàlla na ko dégg. waaw kay merci beaucoup waaw kay jërëjëf jërëjëf. déglu ma ñëpp. dinañ ko dégg incha allah. Touba man dundu gi may dundu nak jarna ma taxaw xoolaat ko parce que deseetuma ku dul ndey gisatuma bàyyi mu soloon dalam def tanki kilifa tak ki di kura indi ko ci bir keur gi kuri di ma sayal top ndigalu kilifa nangul ma bëgg ma toppatoo ma xiifu ma maru ma raflewu ma ku def ci man loo xam ne su ma génnee ku ma xool bëgg ma ma jël sama bopp nag fas yéene ko wanteer kii di xam li ma bëgg te xamul li ma bëgg ma sama yaay am déception man ma am déception dama fas yéene lan takku ko indi ci biir kër gi mu bëgg maa jàppee benn nit ku tekkiwul dara ba tey jii ana kura dem na ana ngóone kenn xamut ci li mu nekk man ma nekk fi nag bëgg sacrifier sama àdduna ci moom ah non seet naa ba seet mais kii di ngóone jaru ko ndax bañul dara fu mu dem ci ay moroomam si kii lu mu bëgg ma defal ko mu bëgg maa jàppee nit ku tekkiwul dara waaye seet naa ba seet su ma ko bàyyee nii rek te yomb trop.